asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa man Moustapha Mbacké bu sëriñ Sam Ndulo maa ñëwoon bëggoon a waxtaan ak mbokki Sénégal rawatina région de Diourbel ak département de Mbacké bii ñu nekk maa ngi nuyoo di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ni moo fi nekkal sëriñ Touba nekkal nekkal fi lislaam ji yëpp noonu nag laay nuyoo. tarixa yi nekk ci senegal yëpp di dellu di nuyoo di nuyu sénégalais yëpp ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew tey nag damaa ñëwoon bëggoon a waxtaan ak waa région de Diourbel dama gis ni kat région bu nekk samp nañ seeni doom jiital leen ca wàll gan nekk ñun nag sunu doom demoon jàngi ba ñibbisi di président Abdoulaye Sylla président ànd beesal Sénégal ñu gën koo xam ci Abdoulaye Sylla boroom Ecotra Abdoulaye nag di doomi Bawal juddoo fii ci dëkk bi di Touba màgge fi yaroo fi li ëpp ci am njàngam mu ngi ko jànge ci diggante Touba ak Mbacké bi mu demee ba nga xam ne ëlliwoom passé na fi mu daal di génnoon daal di dem bitim réew jàngi xam-xam comme ni ko ñépp defe mu dellu si nag fii ci réew mi di dagaan baatu askan wi bëgg a dem fee ci assemblée nationale loolu nag moo tax ma daal ni woon danaa woo waa région de Diourbel bi nga xam ne ñoom laa ko bokkal ma bëgg leen a xamal ni nit ku nekk amut ku doomam amut kudut mbokkam Sénégal gépp sax naam benn la waaye yàlla dafa dogal ñu xaajale ko ci ay raison capital ba nag ñun ñëpp ko bokk réew mi ñun ñëpp a ko bokk waaye kuy ñibbi sa gox ngay ñibbi Abdoulaye Sylla nag amut fenn fu dut de Diourbel amul fenn fu dut département de Mbacké ak Touba gii ñu nekk Abdoulaye nag pour ñu présenter leen ko dana yomb lool mbooleem lum yéene ci Sénégal rawatina fii di res fii ci région de Diourbel maa ngi dégg ci ay waxam mu daan ne région de Diourbel de ba ma fi naalee ab naal boobaak léegi mën na fukki at def fi assainissement boo xam ni day toll ci ay milliards waaye yàlla sottalu ko woon ndax gouvernement bii ñu génn nii moo ci defoon ay jafe-jafe ba loola farut sotti te noonu la ko bëggee woon Mbàkke Bawal gi noonu it la ko bëggee woon fii ci biir Touba Touba sax am na lu mu fi commencé def loo xam ne leer na ñëpp fii la ko def ci marché Ocass marché Ocass ay millions la yëkkati def ko ci assainissement bi te millions yooyu ba nii may waxee yow nii boo taxawoon marché Ocass di leen laaj lii kan moo ko fi def ñoom dañ naan la président Macky Sall moo ko fi def te booba président Macky Sall defu ko fi président ab Abdoulaye Sylla moo ko fi def ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. boo xoolee waajtaayu màggalu Tuubaa gii buy buy jub si ay camion yu bëree bëree bari la fi yebal ci biir dëkk bi nga xam ne ay fukki fan ak juróom lu néew néew danañ ko fi def di di di sëkk di sëkk taataay yi di roñ suuf si di ñëw di ko tasaare ci dëkk bi ngir gan ñi mën a dugg ak génn njabootuk sëñ Tuubaa gi te nii ma ko waxee nii ni la koy defee Tiwaawan nii la koy defee ci mboolem kër diine yi lii nag lenn la rek li nga xam ne lu tuuti la ci jëfam ci ci ci région de Diourbel bi lu ne la leen yéene barabu seex Cheikh du faadal bii moo ko liggéeyaat barabu Cheikh Cheikh Cheikh Sidiyal Mokhtar bii moo ko liggéeyaat loolu sax moom bëggut bëggut ñi di ko tudd tey it tudd sax ndax boppam rek nee na la ko defal waaye daal ma di leen gën a xamalewaat seen doom jii nga xam ne mbooleem lu mu am région de Diourbel la rawatina fii ci département de Mbacké bi rawatina Touba. ma di leen présenté waat seen doom ji xam naa ne naam xam ngeen ko sax waaye ma bëgg ngeen gën koo xam te topp ci ginnaawam te jàppale ko bam yàlla dogal baatu askan yi muy dagaan pour dem assemblée nationale ñu jox ko ko ci niim mu gën a jekke te xam naa ne loolu waa Bawal bu dajaloo doon benn mën nan sax lu ko raw te leer na ma ne ci waa Bawal buñ jàppee duñ bàyyi te bëgguñu ludut seen doom ndax mën na maa joxe rek ñaari misaal ku mel ni Ousmane Sonko fii ci euh, Casamance gis nga ni waa Casamance joxe ko bopp topp ci ginnaawam mën naa cee cité ku mel ni Idrissa Seck fii ci Thiès ni ko waa Thiès joxe bopp topp ci ginnaawam mën naa cee cité ku mel ni Omar Sarr fee ca Dagana ni ko waa daggana joxe bopp topp ci ginnaawam loolu ñun waa Bawal ñoo leen ko dàq fopp ni président Abdoulaye Sylla mii mën nañ koo yëkkati topp ci ginnaawam te duñ ko booleeg dara. fii daal mbooleem ku fi daan am dara na nga jàpp ne ren duutoo fi am dara ndax doomi dëkk bi ñëw na doomi région bi ñëw na doomi département bi ñëw na maa ngi leen di gën a woo ci bulletin bii nga xam ne mooy bulletin bu baax bi ànd beesal Sénégal ngeen jàpp ci bu baax a baax a baax a baax a baax Ablaye kat lim yéene ci région bi bari na rawatina lim yéene fii ci département bi te lim yéene te lim yéene ci département bi yéene ko ci région bi lu ko raw la yéene ci senegal ma bëgg nag ñu xam moom mooy kan te jàppale ko bu baax a baax a baax a baax lii nag laa ne woon mënuma koo ñàkk a wax ma génn wax leen ko euh, mënumaa ñàkk sant nag ku mel ni Serigne lu Mbacké moom sëñ Mbacké Soxna loo mii nga xam ne dafa ñëw ci coalition bi ànd ak président Abdoulaye Sylla président ànd beesal Sénégal euh, di sant bu baax it euh, Saliou Sylla mii nga xam ni moom lañ jiital fii ci département bi di sant bu baax ak ñaanalit soxna Assou moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma mi nga xam ni moom xarit la wóllëre la jug taxaw temm di jàppale xaritam di Abdoulaye Sylla di sant bu baax it partisans yëpp ak sympathisants yi mënumaa ñàkk a tudd it seen Jili Ñang mi nga xam ni moom day kenn ci président Abdoulaye Sylla di leen wax ne daal seen doom a ngi nii yéen waa senegal di leen wax ni seen doom a ngi nii yéen waa Bawal di leen wax ni seen doom a ngi nii yéen département de Mbacké rawatina ab lay daal fii la juddoo fii la yaroo jàpp naa ne nag booy xëccoo mbir ba dem fa nga juddoo dem ca région ba nga juddoo dem ca département ba nga juddoo kooku moom ñooñu moom ñu la mën a xañit ñooña doon la xañ te yaakaar naa ci waa babal wóol naa ci waa babal ñoo ngi leen ciy gën a woo bu baax a baax a baax a baax lii rek laa amoon ci lu may wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu